njaboot gi yaraat njaboot gi liñ naan njabootu kanaara lañ ñoom ñooy jiitu ñu topp est-ce que d'accord nga loolu ndax génération bi xam ne mooy bu bees bu mujj bi maanaam gis nañ éducation de base daf leen manqué trop trop trop trop ñu wax sargal jigéen nag tey waaye njaboot bi dëkk la mhm. waaye ba ñu nee nañu yar mhm. dañu waroon am fu ñu njëkkee yar yar bi dafa am fu mu njëkkee mhm. xale bi bu defee dara xoolal waajur lu wér la moo tax xale buy def lu ñaaw dafa war a rus ndax lu mu def ci lu ñaaw waajuram lañ koy wax lu weer la dañu naan doomu diw la ah xamoon nga ne dina ko def kon yow dangaa tooñ sa waajur tooñaale sa bopp mm-hmm. ndax yow loo def rek sa waajur lañ koy jiiñ lu wér la te dëgg la waajur yi defuñu dara mm-hmm. jamono jii ñu toll nag mm-hmm. communication bi daf ko bëgg yàq yaa ngi wax lu leen neex des réseaux sociaux bi wallaay ko xale yi waxee dégg ay mag yuy wax naka sa dul noonu internet bi di bi di paate ñëw liggéey mhm. boo ñëwee buñ la laajee nga ne nguur gi laa ko dénk ñii di wax kii te lu waay def te yàlla nag mhm. jikko yi jikko yee yàqu yàlla la fi nekkal lu wér la kuy yaakaar yaakaaral yàlla lu kuy wóolu wóolul yàlla kuy doylu doylool yàlla fi yàlla rek moo fi nekk dégg naa dëgg billaahi yàlla rek moo yow nag ba ma lay xam ba léegi ci jom laa la xam ci ngor laa la xam man maa nga la xam ca ba ngay commencé fecc ndeysaan toog sama restaurant di wallaay ndeysaan yàgg dëgg la ku yàgg am jom nga ku yàgg bëgg sa bopp ku yàgg toog xale bu yàgg bu boo ñëwee bëgg sa bopp solu doo bëgg sax même boo feccaat booy génn il nga ñaan ma ndox raxasaat sa tànk diwwaat soo ko jël sa tànk def ci xet yu baax suñu waxee ma laa waa xale yi moom ëmb <laughs> moom anamu su ma la gëjee gis dama lay laaj mhm. baax daal moo am solo yal nañu yàlla baax amiin waay eh, baax nag mhm. baax waaw waaw mais yàllaa koy cërale jàmm yàllaa koy boo baaxee mhm. sant ko sa borom ndeysaan ndax ki bon a baax la loolooy cëram lu wér la kon yal yàlla baaxal les femmes VIP ak les seetaan ñoom Penda Diallo. billaahi ajara ah. Penda Diallo mu baax mi nga xam ne su may gàmm moo gën ci. ndeysaan. Amira Fati Fati naan. bi ci man. ak baax. Ah, di wax sama xarit ba xadi kundul nga xam ne. xadi kundul borom Brooklyn na ma damay bëgg li kenn du moom demal nga traité toggal ma loo toggul. ma day awa ñing yaayu mu naan fekk maa ngi lay gërëm di la sant ngoy bu baax. yaa ji ca New York. média man dama koo bëgg. bëgg naa ku nekk di wax. ndeysaan mais bëgg naa kuy wax lu baax. dëgg la te yéen ngoy yow référence la. ci wax jaax bu baax la de. maanaam ku lay seetaan du dégg mu nga wax lu sa baax loolu baax naa sant yàlla. waay parce que lii yëpp ñu nekk nga juddoo màkka de. xale bu jeeg yiw la sama doom nga xam ne nag ngi ànd ak borom këram. soxna Ngop. di wax ne ma am lu may dénk lu ma leen di dénk. ndeysaan. boo ci nekkee da ngay yaakaar yaa ngi lépp mm. mais am na loo ne kenn téye ko yàlla ko téye lu wér la waaye nag mën a communiquer. daf koy amal solo lool. te tey jàmbaaru jigéen ñi rek nga jàmbaari jigéen ñi. nga toog ci plateau. barkàlla dégg nga moom li mu waxtaane mm-hmm. dégg nga tamit lu mu gàtt gàtt naax ñaax nañu. lu mu gàtt gàtt am na ci lu mu dugg. Mm-hmm. boo jëlee sa jëkkër def ko moroom. Mm-hmm. say doom ñu sànni leen comme mbalit. loolu mooy li olof ni ku togg sa jëkkër. yàq sa doom. say doom barkàlla kon conseiller boobu jàll na. la euh, ñu di ko laat tuuti rek. maanaam comme lekk yi léegi mm-hmm. lan la ci doomu aadama war a moytu mm-hmm. à partir de vingt trois heures loo xam ne ci lu gàtt rek ndax kenn wératul directeur Kër Rasoul ñu ngi noonu mbokk téléspectateur euh, yàlla dafa dogal ne euh, dañuy naan nit koo gis sa loxo lay rey dëgg la mm-hmm. wér doomu aadama boo gis sa loxo moo lay rey wér la war ngaa mën a xool ngay jumtu say jumtuwaay maanaam li ngay lekk lu jëm ci sa biir da ko sellal te xam sa heure lekk doomu aadama yow yaay xam sa bopp bu fekkee ndawal jigu la guddee wàññi ndawal dafa nag yàlla dafa dogal léegi di nit ñi mën a lekk oyof nga tëdd te du la sonal dëgg jël sa salaat bu yem mm-hmm. dañ ma zoomal waay dañ ma zoomal li li yaa fay daal dressé waaye boo bàyyee ba xaaju guddi comme suñu mbokk artistes dem daal ba ànd ak Mara ba 4 heures du matin dem jënd ci côtelette yi nga ne kon nañ xool tànk xar bi fu mu féete ah? <laughs> ñëw daf ko yëfi géwél mi ngi koy jiin Mara mi ngi koy <laughs> ah. si sel mi ngi ko koy jiin de waaye daal ndeysaan ñu nekk na xam li mu war a jumtoo di xool li ko ci li ko jik la jik c'est important ah waaw mhm. am na koo xam ne suukar ko lekkee mu sonal. waaw ko def dara. Mhm. am na koo xam ne bu teelu la reer dafay sonn. day mhm. comme que jigéen ñi tey ñoo xewle. bu sa borom kër teelee wàcc nga mhm. teel taaj reer bi mu teel reer li si kanam nag ngeen mën a dox tuuti te ba pare bu ñu reeratee ba pare digérer dañuy marche waaw même bu dee am nga escalier wala terrasse ah, boo naanee sa lu mel ni saay mu dam sa tii nga dox tuuti waaw ci mag ñi dina tax li ñu lekk xaw a yëngu lu am solo la lan lan la ñu indil tey ci ci sargal jigéen bi tey macha allah non lii bu ci kanam fii ndax ñun ñun chaque jour sargal jigéen ndax ndax traiteur Kër Rasoul tubaarkàlla mhm. indi na fi eh, macha allah ay brochette waaw indi na fi risol xanaa xanaa xanaa ñu jox ñu ñu ñu jox ko micro yaa xa jaar ci sax ak ay beñe macha allah mu présenté ñu mu présenté ñu ak jox ko macha allah waaw moom moo lay wax ngay jottali macha allah macha allah waaw mënut a ñàkk gars yi giriñate xam naa ne daa bëri kersa. waaw waaye daal xam naa su fi traité dinañ ci bàyyi brochette. daa nañu benn salaat ci bu bu yem. macha allah daal comme ni nga ko waxee daal bugguma di nit parce que damay jël seen temps. mais daal xam naa ne sa sous-traiteur daal mu ngi fi depuis euh, yàggul dara. Mm-hmm. dañu dugg ci wàllu dressage dugg ci wàllu traiteur. Mm-hmm. di liggéey parce que man dama nekk soo gisee ma dugg ci traiteur bi. waaw. Euh, sama shérif moo tax shérif Abdallah ibnu Omar ibnu Cheikh Mahfous. Ah, moom bi ma seexal. moom moo ma ne daal euh, dañ doon waaj journée bu mel ni place de souvenir mu ne ma damaa bëggul kenn xiif. Mhm. bëgguma kenn mar ndax bu ñu amaan événement ñëpp dañuy xiif ñëpp dañuy mar. ma ne ko nag dama bëgg nga ñaanal ma yàlla. ba su ma demee yóbbu fa samay ñam kenn du fa xiif kenn du fa. mu ñaanal ma ko nag. wallahi ummu su may demee am événement. Mhm. ba ni may ñëwee kenn du xiif kenn du mar. ma xam ne lii sama métier li nga fi indi nii tey kenn xiiful kenn naa restaurant xar yaa nga ca suuf. macha allah defar nga ba mu baax. def naa mënul fii fi mu ngi dëkk Grand Yoff suñu numéro téléphone di 77 354 05 66. mu ànd ak équipe am nag. équipe ko 354 05 66. macha allah loo ñu indil tey ci dressage. waaw dressage bi dama leen dama leen indil brochette. indil leen tuuti amis. bu chéri ibil brochette yi ñu zoom ko. waaw ubbil brochette yi ngay liggéey set na sell na am na maanaa. am say invité rek ñu indil leen tuuti sucré ak salé. yëkkatil benn brochette may xool indi nañ ci tuuti. ngay création yi. léegi indi leen tamit aussi euh, indi nañu. tuuti léegi jëlal sa plate nga def gars yi dégusté. waaw waaw dëgg neexut xool <laughs> waaw ñu <laughs> mën wax. mu daal macha allah su fi traiteur daal nga noonu sa kër la. waa kër Rasoul ndeysaan xam naa ne daal ngoy moom. waaw allah kon daal moom. waaw waaw Sophie daal ñu ngi lay kontaane wax sa bopp daal dafa métti dëgg la Sophie dëgg la wax nag si ah, dëgg la Adja Sophie macha allah ah waaw baax na macha allah tabaar dañuy servir la tey dinañ toj télé waaw waaw waaw waaw macha allah Aïcha ah macha allah amul borom kër yàlla nga fi jëree ah, doone waar na lay góor yaa ngi taxaw macha allah sargal jigéen lu nee ngi fi daal lii war a jaagal jaagal fii am nan problème de yaa macha allah macha allah waaw waaw. ayca jëlal jaagar jaagar moom ci Sophie Traiteur ci équipe bi la bokk. fay da la mën a sant. Sophie Sall aussi tamit ci équipe bi la bokk. waaw nag mooy lépp Sophie Dior ah, waaw moom daal mooy moom mooy. ñu ngi sargal tam suñu benn yaay bu baax. Ah, maire ñang ci Nations Unies. Mhm. mu nga toog foofu ca Gora Ndiaye macha allah. di fa jaay di sama yaay bu bi mu ñëw jaaga jaaga borom lu vert li fii ñoom Modou Diouf a ngi seetaan Papis Mbaye ba jaar fi nag di sar di sargalaale umu may sargalaale sama jëkkër ju baax rek mu umu wuyul umu ma ne ma dugg rek di sargalaale sama jëkkër ju baax yu ma ay saba yu ma ay ah, saba borom Philadelphia bu mbaax bi. Ah, waaw waaw jéeg yu baax nga xam ne bàyyiwul benn jéegam dool. déedéet Philadelphia. ñëpp lay toppatoo ñëpp lay jàppale. alpulaar bu bari valeur. alpulaar bu bari valeur boobu nga xam ne. bam ñu jàppee ba léegi bàyyiwuñu mooy suñu borom kër te jàppale nañu. ndeysaan ah. ah, waaw. Yuma Aïcha. ah tudd baax de. waaw waaw. ne do moƴƴo jom Philadelphia. ah jar naa ah. de. dina doy waar de. sox waa soxna Ndour looy looy nuyoo. bokk téléspectacle looy nuyoo. yaa Rasulillah. waaw. xayru lan. faati mu ndaw mi may woo ndeysaan man de dama lay way doom ju bëgg yaayam moo waaw

jàmbaaru jigéen yi nga xam ne ne yow rek lañ bëgg ñu ngi lay seetaan ak say géer yu baax tey macha allah ñu ngi sargal Fatou Gueye ñaa Balla Gueye maram Thiam waaye ñu ngi sargal nag may mën fay Ndour Faye MNF borom télé bi macha allah ah, naa ne ak may mën a Ndour Faye muy wax bébé de l'année sax moom moo ci demoon daawaati jeeg ndeysaan nit ku baax la yaayam baax papam baax wallaay borom wakaam nekk nag doomu gor. ndeysaan. may mun a nit ku baax la. Mhm. ñoo ko yar. marraine la ci bis bi. Ah, kon macha may mun a kon say say mag ñëw nañu tey. waaw waaw ah, man de directrice bi moom sama dooma. teraangaam a ngi nii de may mun a nduur fay. waaw xanaa ñu jox ko rek. ak parfum euh, jantal Mara mu joxal ñu ko aji ngoy caali macha ci may mun a nduur fay. waaw waaw nga xam ne ne jàmbaaru jigéen. tey moom la ñu décoré lii suñu patron bu baax boobu nga xam ne bàkkoowu ko ndamoowu ko journaliste bu mag boobu ci Ndakaaru chéri colonel Faye nga xam ne ne sama kër gële ba ma koy tabax lu ne la ma defal ko man may mun a aw ma sa fay ah macha allah di ko jox nag chéri jantal Mara déggal li ah wallaay daro colonel Faye Faye bi ran ganda waagaan dugu dugu waagaan moo ko yelloo nag ndeysaan déggal loolu yaa cheikha ah, macha allah traiteur ko rasoul ma ne ko traiteur ndeysaan ñaareel te sonaluma waxaale rek tey bésu jigéen ñi la. waaw waaw te jigéen mooy yàq jigéen. jigéen mooy sonal jigéen. waaw waaw jigéen mooy toroxal jigéen te sëy ñu ngi ko takkee ci aras kenn takku ko yàlla ko mbiru yàlla la. dëgg bu la jigéen fekk see na ko muñal te yàlla tax. may jaar di gërëmaale sargalaale sama borom kër gu tedd ga di sargal sama ñaareel xaritu jëkkëram ah, aram ñing moom moom bi moom laa koy sargal ah macha allah borom añ yu neex yi moom laa koy sargale waaw waaw waaw waaw waaw dëgg la waaye umu alaaji papa Diop maa ngi koy nuyu de Diop bu nag njaag fara caakaak sama waa jooju moo meer kay kon yow foo datar rek ñu daal di dugg mbattalu waaw eh. ayca doom jooju doo di la jooy loo njaay sa xol du neex lool lool njaay booy na leen sargal jigéen ñi faale umu saw sa boor lu la noon wax dala sosol yaa tontu sa néegu yaay tontu sa néegu baay li la yàlla dogal Dakar la mooy doo ko defati de sama jëkkër ji gën. non ëpp na loolu ëpp. soxna sargal jigéen. Ah, waaw jigéen. macha allah yaa wax. fi tàng na. xanaa tubaarkalla comme suñu traiteur bu ñaawul yaa Cheikha. waaw. ñu fexe rek macha allah jege si. Chérif waaw. tubaarkalla yaa Cheikha. Chérif na ñëw fii Chérif ñëw. ah xaw a wax tuuti ci la yaa Cheikha li mu def. macha ndax dëgg yaa Cheikha waa mu ngoog. borom demaat tuuti moom tey góor ñi ñooy sargal jigéen ñi. macha allah mooy yoon yaa waaw waaw ok ñëwal ñëwal ni Chérif. acca acca Chérif acca. waaw. macha allah soxna Ngom jox la nga balaa. waaw waaw waaw Chérif Jën Salmara. tubaarkàlla tubaarkàlla. waaw macha allah suñu góor suñu xarit. <laughs> maa la wax lii maa la wax lii. kenn du yow. waaw waaw tubaarkàlla xanaa ñu nuyoo la lii rek suñu Chérif bi nga xam ne ne sama. waaw loolu am tubaarkàlla sa maama yonent ndax yu mel ni yu waaw waaw loolooy dëgg Amazon jox la ko loolooy dëgg macha allah te Amazon yemul ci parfum yi rek Amazon a ngi ci diw yi mu ngi ci tubaarkàlla ci ñaw bi waaw waaw mu ngi ci ensemble yu rafet yu rafet yi mu ngi ci dàll yi mu ngi ci saag bi waaye tubaarkàlla macha allah mu ngi ci denrée alimentaire yi macha allah mu ngi tam ci jigéen joo xam ne. dese ngaa wóolu sa bopp rek boo demee Amazon boutique. da ngay seet nañ jàngal bu baax ni ngay toogaate. ak ni ngay fexe ba te Amina tey dafa am nu mu ñëw defanteeg yéen. tubaarkàlla waa déggal lii jël coffret bi def ci ay yëfam. waaw yow déggal lii ah macha allah lii de moom xanaa du chéri jantal Mara moo ko war a yóbbu. déggal lii déggal lii garaaw na de. lool day garaaw lool day garaaw Amina cristal <laughs> ah ànd ak macha allah nday màgget. waa nday màgget cuun nday màgget bu màgget jo princesse. ah ki ne Abdou. ki ne code tubaarkàlla mooy yaayam Aïda Samb Aïda Samb Séga Sey nag moom mooy borom design yi moo ànd ak Amina Cristal borom Pikine macha allah mami Thiala nag chéri ay ah. sa jaaga di seen doomi nday ah mi ngi noonu tubaarkàlla macha allah Amina yëngal na jamono aarama jëlaat carte bi mbokk téléspectateurs yi mhm. ak coffret bu rafet bii de ngeen di gis Amina xale bi nga xam ne moo décoré plateau bi ba mu rafet mi ngi def jàmm de gis nga ko soxna Ngom lii la def Amina Cristal borom déco ci événement yi moo ci gaaw ci lépp luy mariage moo ci gaaw entertainment yi moo ci gaaw ah secret de famille moo ci gaaw mu yëkkati sa wantaay ci entertainment bi ah man ca entertainment wantaay bi daan gis ay tusi waaye gis nga soxna man fi mu toll ni daf maa yëngal ba nga xam ne bi yaa moom soxna Ngom yaa xajaa yëkkati tubaarkàlla mi ngi nii gis nga couleur yi mu def unique la Amina Cristal def mbokk yi Amina Cristal macha allah képp ku bëgg rek déko sa kër rek wala di ñëw a décorer sa sa néeg Awa ah, wala Amina Cristal. tubaarkàlla gis nga ko nii ci plume bi. waaw waaw xam nga façon yi am na différence macha allah. sargal jigéen bi mu ñëw na fekk si ñu def na ci lu ne. waaw waaw Master bi waaw Amazon boutique indi parfum yi. umu waaw. Amina Cristal daf la jàppale. dégg nga te Kerewas téye sàkket da cay daw. moom. te yow saw sa boor. Mhm. sa émission bi ñu naan umu show. umu show da nga ciy jàmbaaru fakk tëdd. ndeysaan. faaw ma sargal la tuuti. waaw waaw xaaroo ci kenn. déedéet. tubaarkàlla da nga cee deme sa yow maanaam dundal dundewuloo. umu sow yow da nga koo dundal. tey boo ko doon dunde li nga mën nga cay def. waaye bu ñu xasee ba war a def émission umu saw mhm. dootoo lekk doo naan. Chérif mën na maa seede. da ngay wut sa wéef ba wéef ba jeex. Mhm. nga daw ca orange ne ba ba mu jeex. nga daw këppatal la nekk Amazon boutique ngir yàlla ñu tubeeg bëgg may mën a nduur fay xam ne am nga amour ci tele bi waaye am nga amour ci li ngay def tubaarkàlla macha allah sama rakk ji doomi saw sa boor ji tey lii nga def ci sargal jigéen nañ ma suñu mbokk caméraman yi nañ ma jël nañ jël li may wax waaye waa lii ma yor nañ ko jël tubaarkàlla parce que dafa am solo te damay bëgg téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu xam li ñuy wax xam li ñuy wane ëppukaay bi ki ko indi mhm. dafa dooleel si waa 7TV dooleel si Oumou Sow mhm. dooleel si waa sargal jigéen ci sama rak di rakkam di xaritam di doomi ndeyam tubaarkàlla Amina Cristal mhm. di doomu Maguette Diop princesse rakk aji Kiné Thioune rakk ndey màgget waaye rakk Mami Talla macha allah tabarkallah xale bu baax boobu nga xam ne tey moo décoré lii ànd ak traiteur bu ñaawul wi macha allah yaa Cheikha tey loolu lañ ñu defal gis ngeen ñaari wantaay yi bu ci nekk rek mën na cérémonie bu am solo. mën na lu am maanaa. Mhm. mu boole ci yéene nag. Amazon boutique ñëw. Ah, parfum bu ngeen fi gis tey rek. ñu fas yéene koo jox caméraman yi. Mhm. fas yéene koo jox vigile yi. fas yéene koo jox jigéen ñi fi nekk jox ko gan ñi tubaarkàlla. Amazon boutique la loolu jugee. Mhm. kon tubaarkàlla loolu buñ ko dee wax. day am solo ñu jàkkaarloog aji ngoy caali ba gis li muy wane mooy lan jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yeeg xarit yi dégg ngeen sama mag sama xarit eh, Aji Ngoy Caali li mu wax nee naa ko muy nit ku bari valeur moom it ñu koy sargal ci bis bi di sargal képp rek koo xam ne ne macha allah yaa ngi di ñu seetaan jàmbaaru jigéen nga ñu lay sargal waaye coffret bi ah dama koy jox rek chéri jantal maara mooy dëgg macha allah ndax ñu neexal sëy bi suñu jabar ju baax jooju nga xam ne ne macha allah yow jantal maara barke yonent bi xamul sax lim def ba mu ne tuuf ne alxayri xam ne ne ñun dañ la dinañ la song <laughs> dinañ la song de yow lu ñu yëkkati jox la ko suñu xol lañ ko tibbee. wallaay dañoo kontaan. bu ko leen ko jox Amina Cristal nag numéro ma ngi nii. numéro Amina Amina Cristal 77. 414. 75 49. waaw 77 414 75 49. waaw waaw boo ko mënul jot foofu nga woo ko ci 77. macha allah 917. 50 26 Amina Cristal. ànd ak nag macha doomu ndeyam Séga Sey. ah sérigraphe bu mag bi Séga Sey duñ ko fàtte borom Pikine numéro téléphone Séga Sey di 77 671 47 06 ñoo defar décoration bu rafet bi numéro yaa Cheikha. yaa Cheikha yaa Hadja sa numéro. tubaarkalla 77. 77 macha allah képp ku bëgg traiteur buy def lu sell te neex gis ngeen ko. weddi gis bokku ci yaa Cheikha. macha ñu jox ko macha allah mbokk téléspectateurs yi. yaa Cheikha day def méchoui day def brochette. day def lépp loo xam ne rek dressé na ko ci table bi dessert yeeg yëpp yéen ñi nga xam ne diabétique ngeen am na seen régime mm. yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a régime am taay fin ah am na seen régime yéen ñi bëgg a mel ni <laughs> sëñ Fallou mi toog ak Sëriñ <laughs> Jabtal Mara tamit ndax ñun moom doxuñu ci taay fin am na seen régime it macha allah kon nag euh, yaa Cheikha ñu ngi lay sant di la gërëm merci d'être venu kontaan nañu sargal jigéen bi ndax yow it jàmbaaru jigéen nga mm. boo gisee ñu xool la xool soxna xool macha allah euh, Daba Diagne xool rek ah, ngeen ñëw fii ak suñu jeune bi dañu wan ne rek génération bu nekk rek am na jàmbaaram ah, nga wax fi nag lu am solo ndax 8 mars it femme la woon hmm. ñu nekkoon fële ca États-Unis Amazonie di xeex seen droit ñu boom ca kenn rey tey jii képp kuy jigéen war nga mën a jóg xeex loolu tey taxaw dëggal sa bopp ah. ne man jigéen laa dinaa wodd sër waaye dinaa takk tubay waaye benn góor du coow li coow li rek mooy gars yi amul baax la. jàmbaar jooju waalo la jëkkee. jàmbaar ah. waalo la jëkkee. mooy jigéenu ndeer yi. waaw parce que Amazone boo gisee ma wàcc Amazone yi dañ koo njëkk ñoom tamit di ko féete seen dëkk ba ñu boom ca femme. lañ ko boom moo waral tey jii loolu wàcc. jigéenu ndeer yi ci histoire Sénégal ñun tey ñoom la ñu war a présenté. may bàyyi nga présentel ma jigéenu ndeer yi naka lañ def tey ba nekkoon ay femme bañkat waaw xam nga bu ñu demee ci jigéenu yi dañuy gën a sori da ngay xool jàmbaaru jigéen bi mel ne Marème fay Sall jàppale borom këram di def lu baax di wax lu baax lu mu xam ak lu mu dégg defar na ko Marème kenn du moom ci jàmbaar fii ñun référence bi duñu jéggi te baax nag fu mu toll nii gars dañ koy dañ koy dañ ciy rawante dafa bëri jigéen ñoo xam ne tey ñu ngi fi. Hmm. def lu baax rekk wax lu baax. Marie madame euh, di sox nekkoon soxnaay ma maître Ousmane Seye. waaw. moom nga xam ne yàlla na xippee àjjana. waaw Marie Seye. nga xam ne dafa jëloon boroom këram. jàppale ko. jël ay bokki boroom këram uuf leen. Hmm. di def lu baax di wax lu baax. sama borom sama rakk si accaas Siri Omar Ndiaye. ak Aïda séeri Omar Ndiaye. nga xam ne ba mu duggee ci kër gi sunu kër ba léegi. Hmm. lu baax lañ fay def di wax lu baax. jigéen ñi ñu ngi fi di def lu baax. de dëgg jigéen ñi kenn gënu leen. kenn gënu leen. ñu ngi fi di def lu baax. di soq di wal. di jàppale seeni borom kër di jàppale kër yi di jàppale borom kër yi. loolu rek mooy mooy mooy njàmbaaru jigéen. dem liggéey ñàkk tedd. ko dundee nag di def lu baax di wax lu baax yéene nit ñi jàmm koo koy jàmbaar dangay xool ku mel ni ajaratu Penda Diallo na borom natt VIP di compter millions yi di jox jigéen ñi te lu yàqal kenn ku fondement woon ah. Penda bu la sa natt egg raax nga ah. noonu nga ko waxe woon de waaw noonu nga ko waxee woon noonu nga ko kon kër ga yal na la jig nag ummu yal na la kër ga jig te ñi amagul yal nañu am ñi amagul yal nañu am toog nag Chérif macha allah sargal jigéen mu war a ñëw tey am ci baat yoo xam ne góor ñi dañu war a sargal jigéen ñi am ay valeurs yoo xam ne mi ngi ci jigéen te góor ci boppam moo ko mën a valoriser Chérif tey lan nga yëg ci plateau bu am maanaa bi émission bi dafa war a daw ak ci sargal jigéen moo tax duñ ci sax tudd bis ndax buñ ci tuddee bis bis dina ñëw nit di ko seetaan muy neex ci xolam yow nee sargal jigéen rek ca montaan ba borom Feeling Dakar waa dëgg la waay. xanaa soxna Ngom sargal rek Amina Cristal ci coffret boobu macha allah. ñu ñëwaat ci yaa Cheikh Xaar suñu traiteur bi nga xam ne ne macha allah Amina Cristal loolu waaw waaw macha allah ci numéro 77 414 75. 49. lii nag dafay loo xam ne lu doy waar la. Hmm. yaa ko wax de. xale yi naan c'est yaa ko saburé noonu. <laughs> Ibrahima Bongo ñuy seetaan. yaa ko saburé noonu macha allah Ibu yow it sargal sa yaay TV ba tey waaw waaw Ibrahima Ib Bongo ah, kon nag euh, ñu bàyyi rek soxna Ngom Birale waaw waaw Amina Cristal sa rakk ji waaw ci coffret bi macha allah bi mu jox jantal maaraay. li ma la door nii rek. ci heure waaw dal day garaaw. lii rek soxna tubaarkàlla yëgul ko ñii ma ne ko soxna dal jigéen te yaay jigéen toog ci biir kër gi di defaral jigéen ñi waaye sampu laa àndoo borom nag ak meew yi saf sama sa baay ku demul bal xale ba gi nii yàgg nga maa yaa ngi teral demul bala ana aja déeri Ousmane kaay ci lii sargal jigéen la nga ci lii kuy jigéen yëngatul jar na sagal kuy jigéen yëngatul jar na sagal Ndiaye c'est heure bii daaw. waaw waaw dana ma yaay demal sangu ba set. maay dem marché. maay toog ku ma ne ko looy toog mu ne ma yaa sa ginaar. waaw daal di dugg jawaay waaye ba mu duggee ba jaag ci keneen ci keneen ma yeeyeyeye. kakakaay. jàmbaar ma rek. jàmbaar ngeen de tey jàmbaar ji. jàmbaar lañ ba pare. bu xam nga ka ci des. ah waaw baax na fii laa yem ak yow. Chérif lu pare nga. macha allah ñu xool société bi. macha allah waaw eh, macha allah ñu ne sargal jigéen. waaw waaw ñu gis léegi eh, xale yi vulgaire di wax loo xam ne ne macha allah di waxu xale naka nga gisee loolu ah ñuy sargal jigéen bëgg di koy defarwaat en tant porteur de voix ndax l'émission tire à sa fin xam nga fi mu toll ñu ngi ci càppaandaw bi yëpp yi jeex na ba pare. waaw ah, ah, Modou Bool war a ñëw. Eh, wallaay day daal di jaajëfalaat bu baax soxna si eh, mooy raxas sargal bi mooy raxas sargal bi. ñu ngi koy a baax ci eh, li ci a doon dafa dafa foog ni. li baykat yi wax ne dafa war a delluwaat à la source. à la source mooy éducation de base. oui ñu euh, yaraat am nga jamono dem na ba toll boo xamante ni mm. euh, dafay metti ba mm. euh, économie bu la dabee parfois nga pour nga mën a toog yar njaboot bi day jafe. day jafe situation économique dafa nekk tënk maanaam mais dañuy def postuwaat parce que mm. ku ci nekk bu ëllëgee dina la laaj nga yaree kontaan nañu bu baax ci ñi ngeen ñëw tey sargal say jigéen macha allah Ibrahima boobu gis nañ ko macha allah bu sama góor di sama xarit ma leen di ndokkeelaat ndax ay baax ngeen bari valeur bi da am seen i ay jigéen am seen ay yaay di leen conseil boo leen gisee balaa émission bi commencé ñi ngeen ñuy defalee di xëcc di defar loolu amul rek moo koy def ku yërëmul sa yaay maanaam yërëmul sa jigéen doo sa yërëm sa jabar kon nañu yërëmaat soxna yi soxna yi ngi souffrir ñii ñu ngi goiat ñii ñu ngi ngir ay métital yoo xam ne ay góor ñoo leen koy teg kon góor ñi nañu delluwaat ginnaaw xool seen jabar yi ni seen yaay parce que des dañuy am jabar sax mu mel ni takk nañ leen ba pare dootuñu nit ci biir kër gi bu ñu lay jox dépense sax niñ la koy joxee du neex ndax doole jigéen bariwul booy seet jigéen ñu bari ñooy suturaal seen jëkkër ci biir kër gi te kuy suturaal sa jëkkër bëgg nga ko boo toogee xam ne sa jëkkër ji xëy na amul dépense boo dee jigéen du am digg yaay teel a yeew lijjanti li ngay lijjanti def li ngay def te coow du jimbal du daal liñ naan géwél dañoo mën sëy d'accord naa de waaye pël yi it mu mën sey lañ neɗɗo ko bandum anon bandiraɓe haalpulaar en mi salminimon onon fof on jarama a min komi kanel naajo debbo pullon ni kanel kaneraji komi dimo kono haalpulaar yi ñoom it ay seykat lañu ay jàmbaaru jigéen lañu di sutura jëkkër yi te yàlla rek a tax góor ñi nag machallah ñuy euh, wàññi violence bi dóor jigéen rey jigéen rendi jigéen ajaangooy caali dañ fi dégg ay phénomènes yoo xam ne doo xamul euh, lu ko waral kon nag ñu tënk foofu rek tàggatoo tëj émission bi soxna eggali ñu bàyyi yaa xajaa développé eh, sa yaay eh, doole jëm ndox la. ndeysaan naa bépp nit bu neexee ndey jaatee ci sama yaay maa koy sargal bu baax a baax. moom moo defar lépp lépp moom la. wallaay di ko wax ni eh, comme ni ma koy faral di waxee. bu bàyyi ñëwee doo doo du defar toogaayam sax toogaay bi rafet na ba pare. donc di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi wéral ko. kàttanal ko ba lépp lu mu ba yéwee ne ci njabootam yàlla defal ko sargalaat aussi samay mag yu jigéen ndax umu man dama gëm ni famille mooy lépp nit boo amee sa famille am sa soutien famille ñu dooleel la amoo seen fay donc à toute la famille jàmme maa ngi leen di jaajëfal di leen sargal bu baax di sargal jigéen yëpp di la sargal yow itam di sargal sama maman ndax lépp loo leen di def rek souvent da di bëgg may ñëw di ci participer te loolu awma ci seen fay ah. yal émission bi law plateau yi sax euh, ngeen am lu kawe seen fi teew kenn ku ci nekk ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax à la fii ci 7TV la télé qui nous ressemble et nous ressemble jaa ngeen jëf. merci ñu def tey ci sargal jigéen. Mm-hmm. mënut a paase lii. déedéet. sargal nañu suñu bopp. Mm-hmm. waaye sargal nañ suñu nawle yi nga xam ne. samedi 16h ñu toog. Mm-hmm. seetaan ñu macha allah. gis nañ leen bàyyee xel. gis nañ leen di waxee lu baax. waaye gis nañ leen teeroo ak niñ leen tatagale. waaye ak niñ leen joxe cër. bépp jigéen bu fi jaar rek. daba jaaj du xolle sunu yaay tubaarkàlla ba ci traiteur bi ay ah, Aïcha tubaarkàlla yaa Cheikha macha uh-huh. allah ba ci sama rakk ji uh-huh. chéri Mara la moom dama koo bëgg ci sama xol uh-huh. ndax day jigéen ju ah, baax day jigéen ju yiw damay xool sama bopp ci moom mu di la xool sama bopp ci yow macha allah di ñaanal suñu doom ji fi jugee waaye di wax ne nag jigéen ñi non violence mm-hmm. am na violence boo xam ne moo gën a metti dóor mm-hmm. moo gën a metti saaga mm-hmm. moo gën a metti xas moo gën a metti lu ne nekk ak sa jabar rek mhm. mu dem léttu ji ba ñëw te neewoo ko rafet na moo ko gën a ay dumaa ko ko gënal nekk ak sa jabar mu togg ba yàq te neewoo ko neex na moo raw duma nekk ak sa jabar mu defar ba mu baax mu leer la ni kii soxla na la boo amul ci moom soxla moom am na ci yow soxla te faalewuloo ko loolu moo gën a metti lépp mhm. te jigéen ñaa ngi dund humiliation boobu ci seeni biiri kër mhm. di ko souffrir te mënuñu koo wax góor bu demee bay jël jigéen di ko tendale ak boppam moom matadul matadina parce que ñu ngi ko génnee ci faaru góor kon ki ñu dindee ci sa faar sa benn faar bu ñu koy compter mu manqué soo bëggee ni moom laay defanteel matadi dugg na la mhm. ñu di leen wax yéen ay papa ngeen mhm. ay ndijaay ngeen ay mag ngeen waaye ay doom ngeen yërmande mhm. ak ndimbal moom moom la ñu yeyoo ñun jigéen ñi defal leen ñu ko li laay wuru suuli non violence à la femme la ñu wax umu may tàggoo foofu tàggoo bu dul tàggoo di wax ne macha allah kontaan naa ci yow sama rak umu man dama bég ci yow yow da ngay nit ku baax léegi rek nga ma jox teraanga pour xabi bi macha allah tabarakallah yow loo yor maa ko moom yow loo am rek mën nga ko defal sama rak ji di ma xiirtal sama borom kër gi fonkule ma sama borom kër te borom kër dafa foor ku la ko fonkule moo la bu saw fan guddee mooma waaye ku la ko xeeble bu saw fan jàppal ne mooma ah, ndax dafa sax ci xol gën a sax lu ne di ci sargal aji nday mbay di ci sargal tubaarkàlla sama yaay Kumba Njaay waaye nag di sargal sama nijaay Maalum Mbay ah, fële ca Malika ak ak njabootam ñoom dañuy seetaan émission bi mboolem ku nekk Nations Unies Cambérène rek maa ngi lay wax ne macha allah ah bon fête de la femme macha allah ci 8 mars bi di la ñaanal gudd fan ak wér di jaale nag madame Guèye suñu dëkkandoo la tey la nelaw ci suñu koñ Nations Unies maa ngi koy jaal képp koo xam ne yaa nga Nations Unies rek mm-hmm. tubaarkàlla ci école Gora njaay bi mm-hmm. maa ngi lay jaal dam Guèye di ko jaalu njabootam mm-hmm. muy jigéen ju baax jigéen ju nangoo sëy jigéen ju bëgg jëkkëram jigéen ju fonk njabootam maa ngi ñëw fii toog ci émission bi parce que sama liggéey la mais sama koñ tay kenn añul sama koñ tay kenn dékkiwul sama koñ tay kenn du reer maa ngi leen bàyyi ñu di ko yóbbu Touba maa ngi koy ñaanal yàlla suuf sa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge te yàlla wasal ci moom njabootam barke te yàlla bàyyi leen fi di ko jaal nag ñëpp jël njaal mi teg ko ci loxol ah, soxna Nday Ayda yaayu Serigne bu Bousso mi nga xam ne mooy léppam mhm. di ko teg ci loxol may mën a coor Serigne Abdou Khadir jërë ngeen jëf yaa Seyda yaa Cheikha macha allah sa mot de la fin kontaan nañu macha allah li nga dressé rafet na di wax nag mbokk yi ci numéro yooyu ñu leen joxoon dina leen ko joxaat ngeen woo ko macha allah ci mariage yi ci boo amee sax eh, sa say nit yu ñëw seet si la nga bëgg a bégal leen boo ko woowee mu dressé la lu baax macha allah lépp loo xam ne événementiel la moom teg leen ko ci loxoom macha allah loolu la gën a mëne ndax grande dame ci réew yi léegi la tudd Khady borom États-Unis léegi la tudd macha allah jabaru maître Ousmane Seye yàlla na xippee àjjana papa coon na ko ne lu mu lëndëm lëndëm nag may niital maître Ousmane Seye niital ba ko papa coon di woy woy woowu papa coon musul woon xam ne dina dara dina mës a am sax ba maître di ko taxawal wala di ko solal mubbu avocat kon kook it yàlla na xippee àjjana fekk ji papa coon ci àjjanay Firdawsi ak mama jaaga ak mboolem julit waaye nag macha allah dañ lay wax rek sa mot de la fin macha allah ngay grande dame nag ànd ak say doom yu baax yu bari valeur yu leen di gërëm di leen sant seen seen ñëw reetaan ndax nit ki li muy liggéey bu ko ci jàppale rek mhm. war na ko mën wax jërëjëf wallaay mu àddina yàggul déedéet bu ñu nee tey bésu jigéen ñi la ñu ma dugg rek sargalaale jigéen bu baax mhm. Annette Seck madame la ministre nekk jigéen bu teey jigéen bu mën góor mhm. koo xam ne Macky Sall bi koy yónni mu koy demal xam na ne bu ko yónnee sutura rek la koy amal umm nañu am tuuti sutura waaye te ñu yërëmante ñu jéem a xam nit ki doo xam li nga xamal sa nawle mm-hmm. mën a taxaw rek dugg ci réseaux sociaux yi jox ko tiktokeur yi ñu weer sa nawle waxal ko lu ñaaw te yow nga dem toog xam nga ne loola nga ko waxal sa bopp nga ko wax mm-hmm. nit ki looy wax da koy xool si sa bopp. waykat ba way na ko sutura yaay. moo tax euh, Annette dama koy xool ba mu yàgg ma ne ko président Macky Sall lim la tànnee teg la fi la teg xam na ko. Mm-hmm. kooku nit ku baax la di gërëm grand sëriñ bari démb rek la mu wax ci ku ne dégg na ko kooku nag sama mag ju baax jaaba ko yakkal muy sama mag ju baax ja ndeysaan ajaratu jeew a jaañ di doomu aja grand sëriñ ah, démb magam bi li mu wax rek boo ko xoolee da ngay xam ne papaam noonu rek la daan waxee jàppale jigéen ñi bu alaaji euh, Basiru Jaañ Basiru Jaañ jeewa sama xarit jeewa mu baax mi sama xarit la bari nene yaayam sunu mouvement rek na xippee àjjana am ñu yóbboo ci magam bi taxaw démb dafa def ni papaam doon defee dëgg la nekk nit ku baax nag mhm. jeewa Mhm. wallaay wallaay wallaay ummu ma di leen gërëm di gërëm ñi may liggéeyal aussi. waaw société yi nga xam ne ñoo ñuy jël ñu leen di toggal. di leen di gërëm. Mhm. bëgguma lim. Mhm. clients yi mënu mënuma lim ñëpp. mais may gërëmaale jigéen ñëpp ñi ñuy jël ci seen i mariage i xew. ñu leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi sama waa mouvement di gërëm waa mbootaay bi di gërëm waa koñ ba gërëm waa Grand Yoff bàyyiwuma kenn mhm. macha allah xam naa ne dama mënul lim ndax xam nga ne seen yii. Ah, waaw metti la. lu metti ci ñëw rek sas nañ la. <laughs> yombul waxal ñëpp. waaye di leen gërëm rek di gërëm Serifa sama doom ji. Ah. macha allah. di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan macha allah ajaratu ngoy yow maa ngi lay gërëm. di leen sant. di joxewaat numéro yi rek. soxla sëfi traiteur Kër Rassoul numéro bi 77 354 05 66. macha allah ku ñu woo daal sa journée dinañ ñëw couvrir ko. jàppale ko jàppale la. ci suñu doole li ñu mën. te bettiluñu ko kenn nag. maanaam tey man dañ may parfois damay dem di waxaale sa nit jël ma ne ma. Euh, ma ne ko ñaata personne la. mu ne ma yow par personne ñaata ma ne ko man duma liggéeyee noonu. danga may wax nombre de personne ah. nga wax ma sa bilan. ma xool ni ma lay jàppalee ndax lii yàlla rek ma ci boole eh, dama ci war a def social ah, war a jàppale nit ci journée ndax journée yi kenn mënu ko yàlla rek ko mën te da ko da ngay gis koo xam ne daf ñuy jël te fekk moom dressage bi neex na ko mais dooleem bëriwul kon ñu yërëmante rek jàppalante ndax am na bés bu ñàkk jëf umu maa ngi lay sant waaw VIP aussi maa leen di sant sant ñi ma àndal ak sa ñaari ma àndal aussi sama xarit yi ma àndal mhm. ñoom ci équipe bi la ñu bokk ci liggéey bi la bokk waaw maa leen di gërëm ñoom aussi di leen sant grande dame bi ñëw na léegi ba may soxna soxna Ngom waaw grande dame la waaw yaayu ummu kooku mooy yaayu ummu ba sama turandoo ah, doom ja nekkul almadi rek di fo déedéet waaw Omar ummu dafa nekk almadi di jàppale ay yaayam ah, di gërëm sunu doom yi ñu bàyyi nag di gërëm sama doom ji ma àndal nga xam ne dëpp fu ne laa koy yóbbu. Casamance. fu ne lay ànd ak man. di dressé di dressé di sonn yal na yàlla may ko borom kër. amiin yaa rabbi Fat Jaxate daal macha allah ak équipe bi muy àndal ci liggéey bi yëpp. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. amiin yaa rabbi ku lim juum nañ ma baal ànd. yaa ngi nag macha allah. tënnu yaa ngi xam ne man yaa ma yaa ma nag moom xam naa ne man tey ma salal macha allah benn jàll borom 10 millions yi. nee naa ko am na ñuy waxi million mais ñuy joxe million te duñ ko wax. waaw natt VIP ñu leen di gërëm ñoom Aïda mu sëñ Babacar bàyyiwuñu kenn jabaru ngañ jóob bi bàyyiwuñu kenn salal man ak umu suñu yére yu rafet yi tubaarkàlla sama rakk ji man nag sama rakk ma abiyee tey ah, saw sa boor waaw yónnee ma tubaarkàlla livreur ni mën nañ ko nduróole maak yow ci 8 mars bi te nii la dëkkeek man maa ngi lay ñaanal yàlla mi am jàmm tey suturaale yàlla na la solal yàlla na la yàlla yiir ci barke yonent bi jërëjëf ki ñaan sama waa ji sargal naa la yaa ñàkk ci yow dama lay sargal à part ngoy ndeysaan jërëjëf borom jamaa bi yaa xajaa soxna sa mot de la fin waaw xanaa dellu santaar yàlla rek li ci kontaan ci yow bu baax kontaan ci yéen teewaay bi ma teew fii waaw waaye nag yow it ma di la bëggee oh. ndax sama xarit nga wallaay fii la waaye ngoy moom it sama xarit la wallaay sa góor la di gën a neex ci ak wallaay dëgg la wax naa ko sànq li ma taxawee fii nee naa li a neex ci ñoom foo leen fëggee ñu wuyu la. dëgg la loolu moo normal boo leen audiowee ñu liir ko boo leen woowee ñu wuyu la te oyof lu la may rëy du la ko may jigéen a oyof tooy la dëgg la ndax bu oyof ci lépp wallaay allah ah ñuy sargal sama yaay gën jàkkaar loolu yaay ju baax nga nit valeur tubaarkàlla macha allah kontaan nañ ci yow macha allah waaye nag may sargal sama yaay sama tippoo sama xarit ak ne bépp xam nañ ne man ni sama yaay ma koy sargal di ko nuyu waaye di sargal sama goro bi nga xam ne daf may sëylee jàpp ci sama sëyukaay nag ba mu neex sargal sama aaw bi nag dama da jaan jemba ak maye jaan jemba ba far ba yaasin jaan boobu nga xam ne su wax ji baree man la waaye bu jëf ji baaxee ba tuuti lool lool lool bëri lool ba ñëpp xaj ci rek ulay sel daa jàppale sa jëkkër parce que dëkk ci kër te yàqul di ko waxal. dëgg maa ngi koy nuyu. yaa gore di nuyu sama njaboot di nuyu ñëpp nag. di nuyu sama jéeg bee nga xam ne. waaw Aysata Mbay soppee nabi maa ngi koy ziar moom it di ko dégg. kontaan ci ñëpp rek. waaw waaw. macha allah kontaan ci ñëpp bokk yi xarit yi euh, émission bi lañ leen indiloon ci sargal jigéen di leen béggee di leen wax ne nag euh, seen mbégte mooy suñu bànneex yaakaar nañ ne liñ leen indil tey neex na leen macha allah ànd ceeg nag euh, soxna Ngom mi nga xam ne chéri gentleman ànd ceeg nag yaa Cheikha Hayu mi nga xam ne nag mooy euh, borom euh, VIP euh, les femmes VIP nekk ci marraine nag muy grande dame boo xam ne nag ñàkk koo am sax dafa wóoru waaye Adja Ngoy Thiali di ko gërëm di ko sant di la ñaanal jàmm chéri Habib géeg bu sëy ci sëyikaay bi wax ci waxukaay bi kenn du yow Adja Ngoy ngi may attaqué non ci lan ko dara ah, ah, yéen a bokk foo tuddee jental maara tuddee fa Habib bi kenn du Habib bi mooy suñu mooy suñu xol maa ngi nuyu sama orchestre bi sa waa orchestre kenn samay mag lañ ñoom samay mag lañ say mag lañ waaw ñoom moom maa leen moom kenn du ñoom ma jógee ah? ñoom ñëpp maa leen moom yow yaay paap su ñu jóg ay magam lañ ba mu des yow. noo yow toj na si yéen laax ak ñu bu ngi lay di la ñaanal jàmm. tawféex ak yaasalaam bu bari xam naa ne temps bi jeex na. di sargal sama yaay ajaratu Kumba Ndiaye. ah net ko bandu alpulaar bu mag bi borom bappaleel borom macha allah kaneel. maa ngi koy sargal ah yaay lépp yow la kon nag yal na la yàlla bàyyi suñu kanam ak njaboot ak suñu taawu kër madame Mbengue ah yal na la yàlla jàppale. ah Mbengue ak Alassane Pedre kenn du moom. Euh, chéri Michel suñu jàmmiñ monsieur Mbengue Michel kontaan nañ ci kontaan nañ ci suñu réalisateur. ah macha allah Mouhamed Pape bàyyiwuñu kenn Modou Diouf ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi ci émission sargal jigéen bi di sargal macha allah euh, yaayu euh, Chérif di ñaanal ñëpp jaam ayta lébu gi maa ngi koy sargal chéri Iso bis bi dañ la ci sargal wa ndax chaque jour yaa ngi ñuy make up ñu defaral ba mu baax ayta yàlla na ngay maam borom lébu gi salon ca kaw maam Diagne nee naa la kuy fàtte démb doog ko ki a makkee maam ñee ñoo bala mañ sax Fatou ñaa chéri Modou Niang Balla Gueye Maram jeewoo borom salon jeey naa chéri papa ca Padoa mun a sekk chéri ah. Baye Ousmane bàyyiwuma kenn ah Lisa Diatta borom Stamboul waaye nag Sofia laay laay Maxtaar Fos si la xarit Diop Matar si la xarit Diop Ngone Meng yaay jal kenn du yow sama lébu bi sargal naa ñëpp kon nag may mën a ndur fay yaa doon marenu bés bi ñi ngi lay sargal fay biram kenn waagaan Adama chéri nen ne ñi ngi lay sargal kon soxo jógal fii loolu ñu def di show tëj émission bi ñeddo ko bandum waaw waaw mu taw yow tàggoo balay xalaat gisa yombul borom jaali ma way la lii ma way la laa ma way la lii ngeer nga habibi yow lay jiin booy dem yóbbu ma waaw waaw habibi